waaye du ñu am virus bi am feebar bi di xalaat lu lekk ak lu ñu lekk man maa ngi ni ñaari fan a ngi nii lekkuma parce que li ñuy indi ñaari saucisse benn euh, mborso salaat ak six frites loolu nit bu feebar mënu koo lekk nit buy jël garab mënu ko lekk waa mënoo jël benn dank ceeb teg ko ci benn paquet tegal ko tegal ko nit feebar bu fi deewul ci feebar bi di nga dee ak xiif dimbali wu ñu dara loo xamante ni dafa métti lekk bu convenable rek la ñuy laaj laaj ñu leneen lekk bu normal tuuti rek lañ bëgg bu fekkente ni loolu dafa diis nañu dimbali au moins ñu mën a am lekk buy jóge ci suñu famille bu dee loolu nga xam ne euh, yàqaluñu dara ci suñu wérgu yaram nañ permettre suñu famille indi ñu lu ñu lekk mënuñ ko changer lekk bi nañu dimbali suñu famille indi ñu lu ñu lekk tey ji docteur yi mu dee d'accord tañu ba wax ñu nu ñu defee lekk bi bu dee def dañuy naan ñu def ko ci ay plaquettes yu ñuy sànni def ko waaye nañu dimbali rek sonn nañu torop